gis nga tonton ñaar ñii ñii ngay gis ñuy ñuy tudd ay nitu diine ñoo xam ne TFM da leen ñor ci maanaam liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ñuy wax nag amin ndax ay kilifa yoo xam ne vraiment seen course lañu yor di ñaanal Télé Futurs Médias pour mu jëm kanam kon dañ leen di delloo njukkal ndax nit ñu yàlla baaxal nañu ñoo xam ne wax dëgg yàlla euh, buñ leen war a tudd rek ci mbiru diine nañu lañu war a tudd waaye buñ leen dugalee ci émission bi pour delloo njukkal ci ñaan yi nga xam ne kon nag euh, ñuy wax amin fu toll ndax ay nit yàlla baaxal nañu léegi benn mannequin la <laughs> waaw mi mi mi mannequin kii ban mannequin la après émission bi wala ma woowee wax leen ban mannequin la mannequin bi daal da doon ngarale diggante ñaari joueurs équipe nationale <laughs> tey mu ayee ci kii suba mu ayee ci kële ba nag fin ba mu ayee <laughs> léegi ma nga ci journal Allo Dakar à la tey boo leen déggee Mamadou Moustapha Ndiaye def na ko ci daaneel sitam journalam tey mbir mi nag intéressé nañu ba dem gëstu ko fexe nañ ba loxoti ndaw si moom ci boppam mannequin bi moo ñëw wax ñu nan la mbir mi amee ndax journal Dakar ñoo ko weer wala moo weer boppam. salaamaaleykum may jox xale yi jigéen ñi ku ci mën a téye sa bopp nga téye sa bopp ku ci mënul téye sa bopp nga dem planning ndax am na yoo xam ne. xaalis ak jaay astar ak bëgg a xew moo la koy teg ndax man xëy na sax siiw ma noonu waaye mannequin bu siiw ci yeneen côté yi doon ngarale entre benn jour bu mu doon génnal moom mu ne ma dama dina su dem ba ci biir mu ne ma noonu mënutuma takk mu daal di laa demee présenté beneen jour boo xam ne moo doon dox sama diggante moom pour jubale ñu <laughs> ndekete ci kaw juboo bi waa jaa ngi jéem a fexe bëgg ma man tamit ma oyof bopp rek ak bëgg xaalis topp waa ji su ma demee leen kër benn jour bi milieu de terrain la mu daa demee teg doon na balancé ma ma delluwaat ci beneen jour bi nga xam ne défensif la mu daa dee tulli défense ñu may ma sas ci wax ci ñu may def kon balu football bu kenn ki récupéré milieu central dégagé jox défensif mu tulli bal ba ñëw fii maa ngi nii bal bañ doon paasante moo dugg sama koll gi <laughs> moo taxit may lancé appel ci xale yi jigéen ñi ngeen def attention bu njëkk ba ñun ñoo doon mbaaraan góor yi waaye léegi góor yi ñooy mbaraan <laughs> billaay wallaay taalaay lii ku ma ko waxoon billaay su ma xamoon lii war na yàlla damay dem defi planning ndax lii teg ma tey gàcc kii milieu de terrain bi jël bal bi passe défenseur bi défenseur bi parage milieu terrain bi ñu daal koy dugal sama koll ki biir baa ngi <laughs> man de damay ragal sax man de damay ragal sax man ay man léegi maa ngi woo Issa Ayatou bu kaf moom laay waxal Issa Ayatou bu yor footballu kaf moom laa bëgg mu wax ak man ak set blatter bi yor FIFA ñoom lay clamé ndax xale bi bu juddoo mun naa juddoo yaa may dégg ndax koo xam ne ñaari pappam yëpp ay footballeur lañu <laughs> xale bi war a juddu ah te du am papa il faut xale bi ñu jéem a wax waa Issa Ayatou bu kaf ak waa set blatter bi coupe du monde yi jéem a xool ñaari sœur yooyu koy nangoo ndax man kenn ki sax léegi mu jeexal carrière waaye keneen kaa ngi football di toj Europe waaye bëgg xaalis moo ma ci dugaloon ak yomb man daal bu guddi jotee dama mel ne su may tëdd damay dégg ballon récupéré ballon récupéré ki dégage ki kee ki marque muy marqué nañ ma bal baa bu doon mbër la sax ñu ne yaaba balaa lamb ci jeex waaye du mbër footballeur la xale bi daal guddi gu nekk ma lamb ko su ma ko lambee ba daj ko dégg arbitre bi sifflé eh penalty war a coup franc ma ne ay bu doon mbër la sax di dégg maa ngi sant sama yaay maa ngi gërëm sama papa yooyu waaye léegi ma dégg dara yàlla moom bu lay natt da lay natt ci lépp. gis nga mbaraan bi ku ko bàyyul li ma dal dana la dal yéen a ngi ni yëqatu di ma xool man bëggoon jaay star rek ak bëgg lu yomb moo tax lii dal ma <laughs> may woo Issa Ayatou bi nekk kaaf mu ñëw lu jënt lii ndax lii nii <laughs> li ma dal maa ko xam lii billaay xam naa moo taxit génn nañ ma sama kër maa ngi nii stade Demba Diop comme que ñu ko def ay footballeur lañu wasinee ko stade laa ilaa illallah yow ñaari footballeur la daal di lay dóor bal bi nga daal di koy récupérer sa koll gi ñu génn la seen kër nga ne stade Demba Diop nga jëm kon prochain prochain prochain ballon d'or deux mille quarante deux booy bi lay doon ñaari joueur papa wasinee stade ngénte ba da xam naa ne cay la ay bu doon bu doon comédien la tey bu doon dañ na ñaari comédien la xam naa ne da daan benn comédien baa nga ca TFM man nañ koy jiiñ man maa weex dunk bilaay man ku caa saay saay naa waaye nag bokk moom ñemewu nga ko bokkoo mu nekkoon ñaari comédien wala mu nekkoon ñaari animateur duma génn ci benn bi de <laughs> ndax mannequin yi dañoo <laughs> xaaral mu noppi sax bañ naan am na benn